waaw euh, ñu ngi nuyu bokk yépp tey ne dañu jóge woon Touba dikk seet si sëriñ yi délégation boo xam ne njaboot sëriñ Touba rek la ñoom ñëpp ñu ngi sama ginnaaw ñu dikk teew fi teewal fii sëriñ Bassirou bu mu si Abdou Khadir di porte parole xalifa général des rek euh, tànki nag li ko sabab mooy diggante bu rafet bi nga xamante ne bii nekk nañ diggante Touba ak Tivaouane tamit lu yàgg loo xamante ne bii sëriñ Touba ak Cheikh Serigne Hadj Malick ci la tàmbale woon mën naa wax sax ne jiitu na leen ndax bokk gi fi la ñu ko fekk ñu dikk na rafetal ko kon muy bokk deret di bokk pas-pas mag ñëpp daan ko dox doxit mu rafet rafet rafet rafet ba tey ji mu agsi ci moom mii di sëñ Babacar Sy ak Cheikh Mamadou Mountakha Serigne Bassirou yabal ñu fi ngir tey ñu dikk ngir jéego ya nga xamante ne bii kat moom la mag ñi daan seqi di rafetal diggante bi ñu dikk bokk ak ñoom gàmm gi ndokkeel leen ci ndax cër bu rëy bi nga xamante ne bii njaboot Cheikh Hadji Malick am na ko ci te barki dem bi ñu magal Touba moom mi délégation bu rëy rëy la def yabal leen tubaa ñu dikk an na ñun ba magal ga jeex tàkk moo tax tey itam ñu dikk fi teew fi bokk ak ñoom gàmm gi dikk di sakkuwaale seen ay ay ñaan ci ñoom dañ leen nuyoo moo di Serigne Bassirou ak nuyoo waa gépp nga xam ne ñu bokk lépp lii nag nekk loo xam ne dafay lu rafet nekk loo xam ne mooy li li war a am nekk loo xam ne mooy li gën ci Sénégal ndax réew bi ñun ñëpp ñoo ko bokk kon foog naa ne kër diine yi bu ñu nekkee benn loolu mooy li nga xam ne mooy li leen suñu borom sant te dafay rafet te loolu aussi jàmmi réew mi ndax kenn yi nga xam ne moo yor jàmmi réew mi ci kër diine yi la nekk kon bennoo këri diine yi nekk ci diggante kilifa yi te sëriñ wax ci barki démb wax ci am solo bi nga xam ne président ñëw na fi wane que taalibe yi aussi nañu def noonu ndax loolu mooy jàmmi réew mi te réew mi jàmm lañu fi bëgg te jàmm te lépp xaj loolu moo tax waxtu bu nekk rek dañ koy rafetal di dikk di saafonte di seq lu baax di seq ay teraanga di seq aw yiw kon loolu mooy suñu ay tànk fas yéene ànd ñoom gàmm ba gàmm ko jeex di ci profité nag di ndokkeel mboole njaboot Cheikh Hadji Malick yëpp di ndokkeel tam mbooleem jullit yëpp ci guddi gu sell gi nga xamante ne bii ci lañ jëm parce que yéen a ànd ak ñoom wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh jërëjëf